بوك السلام عليكم نيغي مي تي مدينه المنوره كي تد في بو فكي دا غاي لام لامي ين ساي نيت يالا ديفال كو تيرانغا غاني كي داي ندايم ليغينا ماي بوك يي كي تد في لا يالا تامبالي تيرال اي وي جورم مومي رنتبي عليه الصلاه والسلام تامبالي كو تانال مومي رنتبي عليه الصلاه والسلام لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء مومي عليه الصلاه والسلام musul dañ moom borom bi subhanahu wa taala ci nëbbu kawnu bi di ko tànnal ndey yu baax amina mi ko jur set na ci bépp tuuma moom amina mi jur rasulullah cheikh sidil xaaji maala jàmbaar ji nee na fama zala man xuulan min asla bi tuharin ila tayibaati rihmi mi ama usul musul dañ moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeram nga musul jaar ci ndiggalu musuma yàlla amina mi ko jur set ci bépp tuuma aminatan naqiyat an sairi tuhami yonentu boobu ndayam ah kay dugg na ci lislaam kero bi ko yàlla yónnee moom rasulullahi nabi dafa dem ba ci abwaa fa bàyyi ndeyam génn àddina bi yaayam di génn àddina njol maakaa ngi am ci six ans wa am arbaatin aw sittatin hëlakat ummu nabi bi abwaa i awi zoxomi mbokk yi Seydina Muhammad yaay ja dem na yàlla yónni ko 40 ans rasul dellu abwaa fëgg bàmmeelu yaay ja amina jóg mu ne ko mën a sa doom Muhammad Amina tuddu baatu seeda ya ne ko ashhadu an la ilaha allah wa ashhadu annaka rasulullah avant muy dem mom Amina dafa jël loxom ba tek ci bop doom ja rasulullah ne ko Mamadou mu ne ko nam yaay mu ne ko kullu hayyin mayyit ku ma sa dundu di nga dee wa kullu jadidin balin lu ma sa yees na rab wa kullu kasirin yafna lu ma sa bari dama jeex ne ko ana may tëtu damay dem waaye métti wu ma zikri baax sama tur man Amina dina dess ci adina ba kérok yàlla yewul bëftu bi kenn duma fàtte xam nga lu mu ko mujjé wax daf ni ko li ma gis li ma la ëmbee li ma la mbee muuree lu baal ma ci waxin bi li ma gis bi nga dina àddina innaka la mab'uusun ku nu yónni ngay doon mbokk yi kii yee gën ndey kii yee gën ñëpp bàyyi keroog bi mu jàkkaarloo waa Xuraysh moom rasulullah ji daf ni leen ana ana nabiyu laa kasib am naa maam joo xam ne wecc na seen i junni maam ana ibnu abdi mutalib moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ana nabiyu la kasib ana ibnu abdi mutalib sama maam di abdul mutalib wecci na si ni junniy maam rawatina maam jala wax maam jooju abdul moo jur abdullahi mu jur ko moo ñu gën yi bàyyi moo ñu gën yi ndey moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit nag mën na def njombe wëlbatiku waat ku def njombe ci rasulullah yi jàngal ay kaamil te tuub te wëlbatiku ndax yàlla nee na yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun lu ngeen mën a def fu ngeen mën a jaar lu ngeen ma mën a tooñ mooy na ngeen tuub bala ngeen a dee waajaan wallaay bu nekkuloo nag moom nit du am xéewal du am allaaxira du am aljana du am bu nekkuloo nag rasulullahi dara du am duñu ko kalaamee kenn nag moom mbaax ci moom la yam danaan jéggale ba noppi daan jëllale moom alayhi salaatu wasalaam